Omar Dramé ñu ngi lay nuyu. donc euh, jërëjëf ci ànd beeg ñun tey ci suñu matinale euh, yow yaay secrétaire administratif bu intersyndical secteur euh, primaire maanaam ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci wàllu woowa. également yaay secrétaire général syndicat euh, ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci wàllum napp gi ak euh, aquaculture lu def waxu lu ay di jàmbat euh, mbëkk mi kon ñu gis ne nag fës na lool jamono yi li tax ñu interpeller la ci mooy bokk nga ci ñi nga xamante ni dañuy teewal nappkat yi te ci limu ñuy dem gis nañ ni ñoom bokk nañ ci ñi ci gën a bari jàpp nga ni li ñuy wax c'est plausible comme cause ndax dañu ne géej gi dara nekkatu fi looloo tax ñu taamu daal di jël gaal yi dem Euh, foofu nga xamante ni euh, mooy ca tugal. waaw jërëjëf si question bu am solo bi donc dañuy jàpp ne immigration clandestine benn phénomène boo xam ne donc newul euh, tey la lëmbee donc Sénégal. d'ailleurs donc phénomène bu bu phénomène mondial la sax mais fan yi gis nañ ne ne donc dafa dafa dafa dafa ñëwaat mhm. véritablement mu nekk loo xam ne ñun dañ dañ dañ dañ dañ ci am njàqare donc ak tiit ci par rapport ak nit ñi ñu si génnee àdduna parce que gis nañ ne donc euh, ñi siy génn àdduna dafa jéggi dayo loolu donc luy wone loolu mooy euh, ñi ñi ñi ñuy jël yoonu gaal gi jé yoonu géej gi di dem donc euh, Europe ñooñu soo xoolee ñu si bëri ñu si bëri maîtriser wu ñu géej donc moo tax donc conséquences yi dafay jéggi dayoo ci bakkan ñu si rop ci wàllum donc euh, pêcheurs yi donc nga xam ne aussi dañuy expliquer ne donc euh, voilà géej gi euh, amul jën donc ñoom dañuy dem wala mu ne donc seen talent ailleurs mais gis nañ ne loolu aussi du région boo xam ne véritablement mun na pousse ngay dem di joxe sa bakkan te xam nañ ne nag géej amul bànqaas comme ni ñu ko waxee mm-hmm. donc mun nañu def immigration clandestine boo xam ne dafay répondre ay normes loo xam ne donc euh, si yoon bu bu bu bu bu bu ngay jaare mais jël géej gi loolu ay euh, ay danger yoo xam ne la vraiment donc ay danger yu énorme la mhm. nit ñi mën nañu des fii si réew mi pour gë véritablement ñu mun a donc euh, participer si développement bi mhm. te aussi état bi yàgg na donc di wax ne donc véritablement mbëkk bi def na si ay jéego yi nga xam ne pour que nit ñi bañ donc dem bëkki donc mooy création d'emploi mooy aussi donc euh, fexe lu euh, ñuy lu ñuy lu ñuy lu donc ñu acteurs yi nekk autour ci géej gi ñu leen di permettre donc ñu mun a am véritablement ay gains wala ay financement yu mun a tax ñu def seen liggéey correctement mhm. mais gis nañ ne aussi donc euh, quelquefois euh, rareté euh, produit bi mooy jën bu ressource halieutique bi comme ni nga ko waxee loolu day ñëw le plus souvent si lu ñu koy expliquer mhm. mais loolu beneen facteur boo xam ne la aussi donc leneen la loo xam ne facteur yi koy expliquer bokk na si donc comme ni ko waxee parfois euh, suñuy produit halieutique bi ñu leen may ñu mun a régénérer ñu mun a noppaleku zone yi aussi parfois dañuy donc euh, voilà mool yi euh, soo aménagé ay zone dañuy dem di fay napp gis nañ aussi facteur climatique bi nañ aussi donc surveillance bu war suñuy suñuy suñuy waax yi surveillance boobu noonu ñu koy def dañoo manque moyen parce que agent yi koy def agent du secteur des pêches ñoo koy def moyen yi war a jox aussi loolu yëpp donc euh, dañ ko war a xoolaat mais ak lu mu mënta doon ak lu mu mënta doon di dem vraiment di mbëkki di euh, def sa bakkan si xottu gerte loolu moom jaru ko et puis aussi liñ fi joxe comme xaalis moyennement loolu pour nga ko mun a jël vraiment koy investir sa réew mu am lu mu la jural mais wax dëgg faa loolu ñun duñ ko digal kenn ñu ngi euh, masawu yoo xam ne perd nañ ci seen i mbokk. Mhm. di wax ne ndaw yi vraiment nañu euh, bàyyi euh, immigration clandestine bii nii parce que du loo xam ne day jur lu baax bi woo état bi aussi mu gën a dooleel donc secteur bi gën a aussi donc financer gën a aussi sensibiliser ci par rapport donc ak phénomène bi. am na solo espérons que parti yi mu concerné yëpp daal di lay dégg. Hmm. ñu ñëw nag ci seen ay problème yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci secteur primaire bi nekk secteur bu am solo seen ay difficulté ñu gis ni. chaque semaine presque ngeen génn banque seen i yoxo ne du ngeen liggéey mais ba tey gouvernement gu mu mel ni saafara daal amul ci seen ay problème lan moo ko waral. waaw jërëjëf donc xam nga secteur primaire moo nekk secteur bi nga xam ne Euh, dafa regroupé càmm ji mbéy bi donc euh, voilà ak euh, napp ji mu nekk secteur bu am solo ci économie donc réew mi soo xoolee téeméer boo jël ci activité socio économie juróom-ñaar fukk yëpp donc secteur primaire moo koy généré donc ñooñu kenn waru leen soofantal kenn waru leen donc wax dëgg fa yàlla manque de respect loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que mënuñu comprendre ñu signé protocole d' accord avec état du Sénégal protocole d' accord boobu nag état bi moo waxoon ñëpp di dégg ministre fonction publique dañuy signé protocole mu ne état lépp lu muy signé dafay fekk ne mun na ko te mun na ko réaliser mais le contraire la gis soo xoolee l' année dernière defoon nañ fi benn grève bu métti métti boo xam ne duré na ñetti weer grève boobu donc lu mu indi woon comme conséquence kenn mënu ko notable euh, euh, maintenant nag suñu demee nag ba ñu signé protocole te protocole boobu damay rappeler ñaari donc mbir moo ko taxoon na jóg benn bi mooy suñu prime interne yi ñu supprimer woon ñu delloon ñu ko donc à hauteur de soixante pour cent loolu gouvernement bi d'accord respecté na ko mais beneen boo xam ne toxtal nañ ko lu am solo mooy fonds commun bi nga xam ne donc xaatimoon nañ ko pour que gouvernement mu fexe six mois yi nga xam ne donc euh, euh, day day ñëw gannaaw bu ñu si xaatine protocole bi pour ñu mun a mettre en place fonds commun boobu. fonds commun boobu nga xam ne day ñëw tout le temps tout le temps. Mm-hmm. la lan mm-hmm. mooy solo si intérêt bi lan la. voilà donc fonds commun bi dafa nekk ay euh, ay koppar yoo xam ne donc day permettre travailleurs yi nga xam ne dañuy dugal si gafaka réew mi. ay ay ay fonds yu am solo soo xoolee euh, suñu naataango yu nekk ministère des finances ministère du commerce ak euh, ministère de la justice ay contravention yu ñuy def nga xam ne donc euh, dañuy def ay amende amende yooyu noonu muy ñëw di dugg ci gafaka réew mi ci gafaka état bi moyennement dañuy am benn pourcentage boo xam ne daleen leen di pour que ñu mun ko séddoo pour mun a performant donc loolu aussi lu am solo la fonds commun loolu rek la ñun secteur primaire dañuy dugal ci gafaka réew mi aussi donc ay ay ay ay ay ay ay fonds yu am solo. Mhm. soo xoolee secteur de la pêche moo maîtrisé minimum minimum dinañ dugal lu mot euh, ñaar téeméeri donc euh, milliards ci ci ci ci gafaka réew mi. Mhm. xam nga ne loolu boolewuma ci élevage boolewuma ci agriculture. Mhm. donc ñun musuñoo am ay prime musuñoo am ay fonds. yàlla nag def na donc deux mille vingt deux la defoon xeex bu metti pour que ñu jagleel ñu ko gannaaw bu état di semence ñëwoon supprimer ko delloowaan ñu ko à hauteur de soixante pour cent quarante pour cent yooyu desoon nag moom lañ bëgg ñu compenser ñu ko ak fonds commun yi léegi nag vraiment gouvernement bi ñu mënuñu comprendre le fait que mu xaatima lu ñun protocole d'accord réunion bu ñu bu ñuy mun a permettre ñu poursuivre les travaux parce que maa ngi rappelé ne def nañu réunion bu njëkk bi nga xam ne dañoo établir woon benn chronogramme. Mhm. bu ñuy permettre ñu fexe nan la ñuy donc euh, euh, ñu joxe woon mandat nga xam ne directeur fonction publique mooy président euh, commission bi. Mhm. mu joxoon mandat sectoriel yi ñu dem xalaat. fonds yi war a constituer fonds commun bi ñu génnee ko parce que fonds commun extra budgétaire la suñu nee extra budgétaire moo xam ne loolu nga xam ne donc du nekk ci budget bi Mhm. waaw donc ñu defoon ko ba euh, xaatim ko ci benn euh, document jébbal ko fonction publique mais depuis ñetti weer ñu ngi toog di xaar ñu convoqué réunion pour ñu poursuivre travaux mais defu ko gannaaw buñ ko saisiré woo ko envoyé ko ay SMS ay correspondance tontul loolu aussi mu nekk loo xam ne mënuñ ko admettre mënuñ ko accepter moo tax loolu moo juwoon semaine passée ñu dem def mouvement jino d'avertissement bu quarante huit pour que état bi xam na ne secteur primaire donc xam nga ñu war ko donc euh, inspecter pour que nit ñi mun a euh, euh, lekk loo xam ne du leen indil gàllankoor seen wàllu ki yaram loolu suñu grévé donc ndaw yooyu kenn du ko ku technicien ministère des finances ñoom ñoo koy valider mm-hmm. xool ndax ñii si ñu décelé li ñuy ndax ci budget bi la nekk wala ci hors budget parce que comme ni ma ko waxee fonds comme extra budgétaire la suñ paree si loolu ñu dem ci texte yi nga xam ne moom mooy jëmmal fonds bi création di fonds proprement dit loolu yëpp si six mois lañ ko waxoon mais suñ defoon donc comme lu si war yëpp fexe ba rencontre yu si war yëpp ñu def ko kon sori nañu wala ñu ñu ñu daanaka mu liggéey d'accord xel lu ñu lu ñu bett ci wax dëgg fa yàlla amul lenn loo xam ne donc maanaam ñun am nañ ci satisfaction mais gouvernement su wootee woon suba suba suba pour que véritablement ñu continuer les travaux donc ñun dinañu bàyyi lépp ci suuf moo tax nag xam loolu moo tax ñu jox leen benn délai de quinze jour pour que véritablement ñu xam ne ne ñun nous sommes de bonne foi. Mhm. maintenant nag lool su amul ñu ngi jël témoin opinion nationale et bu xamal na leen nag wax dëgg saa la ñun lépp loo xam ne. Euh, def nañ ko pour que bu ñu dem ci grève nga xam ne day indi ay euh, conséquences yi kenn bu duñu waxtaable balaa ñu àgg foofu ñu ngi wax gouvernement bu réagir di wax aussi les bonnes volontés mhm. médiateur de la république co conseil du dialogue social donc ñoom nga xam ne première grève ñoom ñëpp intervenir woon nañ ci mhm. ak acteurs yi aussi mooy les mareyeurs les exportateurs les agriculteurs les éleveurs ñoom ñëpp donc defoon nañu médiation pour que grève bi jeex ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp aussi ñu defaat médiation pour que gouvernement bi woote ñu mun a continuer les travaux jàmm nañ lay mhm. mais sinon loolu su amul ah wax dëgg fa yàlla bu boobaa ñun dañuy obligé donc euh, euh, salfaañee secteur bi paralysé ko te xam naa ne donc loolu euh, ku ko dégg si ñoo xam ne xam nañ luy secteur primaire dégg maanaam vraiment dina nekk loo xam ne dina leen jaaxal parce que ñi ñuy contact dañuy wax ne vraiment ñoom musuñu woon donc xalaat ne affaire bi dina demaat ñuy defaat grève mhm. nañu na gouvernement bi respecté donc kàddoom comme ça donc jàmm ñëwaat ci secteur primaire bi c'est ça espérons que ñu bañ a yegg foofu fépp et que appel bi nga lancé à travers Rewmi FM ñoom ñu dégg ko kon ñu ngi lay gërëm di la sant maa ngi lay euh, gërëm Awa di la sant di remercier seen euh, auditrice ak auditeurs yi